bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa abim bi fiika yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sharika law asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Tuubaa xaadimu rasul di ñaan sëriñ Montaxa sunu boroom yàggal ko fi lool dolli ak wéram ba naal yi mu am ci liggéeyal ko diine yëpp sunu borom dogal yëpp àgg te ñu ànd koog moom gannaaw loolu nu am bis boo xam ne dana koy waajal muy bis bi nga xam ni sëriñ bi moo ñu joxe ndigal muy bis bi njëkk ci weeru rajab di war a dëppoog xëy na le 2 wala le 3 février incha allah muy bis boo xam ne nu ngi koy defee fii ci buntu Pàkku Lambaay xam naa bala ñuy sore ci kàddu yi dana am ay jëwriñ yoo xam ne ñoo fi toog boo ko defee ñu jox leen ñu jàllale seeni kàddu ki nga xam ne moo nekk suñu wetu càmmooy muy sëriñ Fallou Ndiaye nga xam ne mooy kilifa ak jotaay bi la président Paku Lambaay ñu di ko wax Ibrahima Diouf teew na fi ak mbooloo mi nga xam ni ñoom lañu àndal. bu ko defee kon day mel ne dañuy jox Serigne Ibrahima juuf moom mi nga xam ne mooy président Paku bi ginaaw bi sëñ bi defee ñaan ba noppi ak kàddu yi ñu jàllale. bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonante bi. noo ngi nuyu mboolem mbokki làmbaay ak mboolem mbokki dëkkandoo yu ndakaaru yi cant gi nag munu sëñ bi sant ci sunu wàll bopp ñetti sant lañu koy déparé nun ndax làmbaay ku ne xamoon na ko démb sunu mag ñi nga xam ne mooy sëñ Bay Njaay cergaan sëñ àll Diouf làmbaay sëñ moor Maane bu may bon na ñoo dugal làmbaay ci ci diine ndax ba leen tañoor dajale ne leen foog ngeen bàyyi sëriñ bi mbaam a rey leen ñoo bi fi woon ne kat tikki sa ndombaak tànk moo gën a yomb liy wax noo lànk dañuy ànd ak sëriñ bi bon nag loolu cant la boo deuxième cant gi mooy cant mag ñi nga xam ne yi tey jii ñu commencé ko ci Alaaji Mor Talla nga xam ne fu pàkk na ci Ndakaaru moo moo ko jiite moo ko dox ak mag ñi nga xam ne ñoom la àndaloon di ko dox ñooñu nag seen cant ak bopp lañ leen di beral ndax bu nu toogee fii tey yaakaar naa grâce à ñoom ndax pàkk bi ragal naa ne man ci bi ma fiy ñëw maa ngi ko commencé Cambérène croisement Cambérène booba laa fiy dóoroo ñëw muy 81 bi ñuy dox pàkk bi mag ñi di mag ñi di dox di dox ba naar bi dem ba ne day jël pàkk bi yaakaar naa ñoom ñoo dajale woon dem ci sëñ Ablaat ne ko kat naar bi kat ne day jël pàkk bi sëñ Ablaat xamal na leen day ku ne ci alali jàmbure bu ko soxlaa lu jox ko ko warula bon nag joxe leen yi jàmbur sunu borom dina leen jox fu gën fii yaakaar naa ba ñu defee noonu la Alaaji Mor solu dàllam ànd ak mag ñi ñu di ko dox ba yàlla dogal ñu tombe fii sëñ boole leen ak ma jëng xari jëng ancien gouverneur ba ñu doxee ànd ak ma jëng mu lijjanti kayit yëpp ba teg seen loxo keroog ba ma jëng ñëwee ñu di ko sant ne bu leen ma sant sant leen Serigne Touba. bon nag bu nuy dox ci taalibe di dox ba sëñ Muntaxa dikk ne kat na ngeen jël bis bii di ko sant yàlla di ko sant yonent bi sant ci sëriñ Touba bon nag ragal naa ne eh, cant rek nu war nun waa Lambaye ndax xamuñu lu dul ak bi ak liggéey jariñoo bon nag man daanaka foofu laa ci yam ci sumay kàddu bàyyi ñi nga xam ne ñoo ci topp ñu mottali li ci des wasalaam. jërëjëf sëñ Ibrahima loolu nga wax am na solo lool cant yooyu nga xam ne jotal nga ko fàttali fi nga xam ne itam moo mag ñi nga xam ñoo fi jiitoon liggéey bi liggéey ci pàkk bii waaye ci biir cant googu itam dinañ ci sof liggéey bi ñoo xam ne dañ koo ànd nag ñun te suñu borom dogal ñu jiitu ji xam naa dañ ci tudd ñaari nit rek ci gàttal ñu yóbbaale ñu ci des ku ñu wax sëñ Ibrahima Diop mu gën a na sëy ci Ibra Diop te nekkan fii ci ginnaaw paak bi ku sonnan ci bis ak ku ñuy wax Baye Jib mooy gën a na siiw ci am ci Baye Faye moom itam wax dëgg yàlla kon nu nga woon a sonn ci liggéey bi la. kon ñooñu mënuñoo def liggéey bu toll nii te duñu leen fàttaliku di ñaan bis bii ñu jëm lañ ciy séentu ci wi lépp sunu boroom boole na ko ak ñoom ci barkeb Serigne Touba. kon dañuy continuer liggéey bi rek daal di jox kàddu gi sëriñ Fall Ndiir moom mbokk na ci membre yi nga xam ne ñoom ñoo doon taxawee lii bu ko defee mu am lu mu ci jottali moom. bisimilah mbokki jullit yi mbokki taaliba yi suñu wayjur yi ñu seqal jataay bi ak suñu kilifa yi ñu bokkal jataay bi yëpp gannaaw bañ leen nuyoo te di leen siyaar bu baax a baax di leen jéggulu ci tardement bi ñu tardé di leen baalu àq te di leen baalu àq bu baax a baax di ñaan seen jataay bi yàgg lool barke sëriñ Touba di ñaanal bu baax suñu wayjur yi jiitu te nekkoon ci pàkk bi ak jiw yi ñi nga xam ne ñoo àndandoon saytu liggéey bi ñoom it suñu borom bi yërëm leen te xaaral di àjjana barke Seexul Xadiim gannaaw ba ñu sant yàlla bu baax a baax a baax santaat bu baax Serigne Touba bu baax a baax di sa ñaanal bu baax Serigne Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi te wéral ko te sàmmal ñu ko te aaral ñu ko barke Serigne euh, di nuyuwaat suñu kilifa yi rek di leen siyaar di leen jégalu euh, di wax ne maanaam li ñu fi dajale muy bis bii nga xam ne moom la ñu dëgmal te amoon ci ndigal lu wér ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla dogala nun ñii ci ñu ko teewoon ci lañ bokk ndax mel na ni bi nga xamee ne dajale nan addiye jiñ ko yóbbulul mu nekkan ci ñett millions yu tegalan juróom fukki ju junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom keroog bañ ko ko jébbalee wax ko ne ko liggéeyu pàkk Touba Lambaye la sëriñ bi dafa daal di yëkkatikuwaat ni mu tooge woon daal di ñu laaj waa pàkk bi ñu ñu wax xamal ko ne ko ña nga fa mu daal di dellu santaat pàkk bu baax baax sant waa pàkk bi ñëpp ñaanal ñëpp daal di joxe bis bii nga xam ne mooy benn panab rajab bii mu bu buñ ci àggatee nañu ci dajeele di ci sant sëriñ tubaa ndax defuñu lu ko gën te it bi fii ñu nekk it ñu xam ne Serigne tubaa ñu fi bàyyi kon fu ñuy sant Serigne Touba rek fii moo ci war a jiitu loolu mooy sababu bis bi. nam ko waxee woon nag xam naa lot nañ ci wax ko ndax moom ban ko ko waxee ñun ñu jàkkaarloo te fekke ko gis nañ ci bi. yitte ak yéeg yéeg joo xam ne am na ko fépp sax waaye dafa mel ni dafa gën a yokku ci jataay boobu ndax bi mu ñu koy wax dafa jógaat daal di na ngeen jàpp benn panob rajab saa bu ngeen ci àggee na ko sant Serigne Touba te yaatal ko noonu la ko waxee woon lu ngeen ca man na ngeen ca def seen kam kam te laay kattan daal di ko jot wax ñu jot li ko ci magu pakke bi sant magu pakke bi ñaanal ñëpp xam naa lottu nañ ci ne ko Serigne bi waxee woon waaye ngeen xam ne loolu mooy sabab bis bi maanaam benn bis bi benn rajab bi na buñ ci àggatee nañ ci sant nañ ci daje jàng ci alxuraan ak xasida ak lépp luñ te mën a def ci berne wala lu lu luñ ko mën a taxawee rek te na mu gën a rafet gën a yàlla ci liggéeyal sëriñ bi ñu defee ko noonu lool la ko sëriñ bi santaane woon la ca des mooy di sant bu baax a baax suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw dañ ànd ak ñoom di mottali seen i jéego ne xam naa mënuñu leen dab sax waaye fas yéenee topp ci seen jéegu yoo di ko xeeñ ñu nga xam ne fekkuñu leen fii dañu jaar fi ba jàll ni ko sëriñ Ibrahima waxe sàng rek ñooñu kese doy na doy na ay roywaay nun ñiit yéen ñi nga xam ne yéen lañ fekk seen sunu jamono ci li ñuy néew néewi at xam nañ ne ay royuwaay ngeen ay référence ngeen te it képp kuy wut lu baax ba ëgsi ci yéen rek bu ñëwee dina ko am rawatina nun nga xam ne seenu njaboot leen àndaat ak yéen ci liggéey bi fas yéene ca lépp fu lu ngeen ca ñu ñëw defal leen ko ca lu ngeen ca ñu defal leen ko ca mooy suñu ànd yéen ci liggéey bi xam naa ni ko sëriñ bi waxee moom duñ ko ni mën a waxee waaye sant mënut a sant sant nañ bu baax a baax a baax waa pàkk bépp muy gone muy mag muy ndaw ñëpp rek gërëm nañ leen di ñaan lii ñu dëgg man dafa séen jaa dem def def lu kawet suñ jot yàlla ko suñ borom dafa barke Serigne Touba ñi ngi sant bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi te mënuñoo teew te seen i jëwriñ teew fi kenn ku ci nekk rek xamal ne Serigne Jibril ak ñun àndal liggéey bi ñëpp amal nañ leen a cat amal leen cant gu wér a wér a wér a wér ndax liggéey bi it mun ñu ciy dox xam nañ ne pas-pas am na ci ab pas-pas te it liggéey Serigne Touba moom ki la ci man raw la ci mooy ki la ci pas-pas te it ñuy xam ne liggéey Serigne Touba des koy def ci lépp des koy def ci xel des koy def ci doole des koy def ci façon bi yëpp kon lay tax liggéey bi ñu gën ci am kàttan gën cee am doole mooy kenn ku ci nekk bu ñëwatee bu nu yem ci ne lii lañ fi dajale ci xaalis nan lay jaayante ab murit day jaayante nañuy moytu ay sas si kese ab murit aw sas dina ko yóbbu fa dina am fu mu ko yóbbu rek waaye fu mu ko war dëgg dëgg moo di jaayante moo tax ñaar damay wax ne nañuy fexe fu ñu dajati def ab jaayante ab murit day jaayante waaye aw sas rek du njàmbaar ak murit loolu wax naa ko jotaay bu nekk dañuy fas yéene di génne li ñu am di ko dellu Sëñ Tuubaa suñ kemtalaay kattan donte ña ngi ci woon ndax kat kenn ku ci nekk boo nattee sa bopp natt sa diggante say waju natt sa diggante sa borom natt sa diggante Sëñ Tuubaa walaay ñëpp na wàccoon waaye Sëñ Tuubaa coono yow loolu nag war naa tax bis bii ñu nu tànnal ba ne nañ ko ci delloo njukkal moom fu mu ci fu fekk loo ca mën na nga ca def sa kemtalaay kattan bu ko saw ñàq fekkee bu ko sa doole fekkee bu ko sa jot fekkee loolu it maa ngi ci loolu moom sama bopp laa ci jiital maa ngi jégg lu baax ci kàddu di ñaan suñu kilifa yi suñu borom sàmm leen te yàggal leen fi gën leen a dëgëral ba seen yéene suñu borom àggalee leen ko ndax nun nii day kenn ku ci nekk saaboo boo yewoo na jàkk bi yéen ñii ñu bokk nekk ci béréb bii war a gën a taxkaat sa laxasaay war a gën a yokkaat sa ngor war a gën a yokkaat sa pas-pas ndax loolu rek leen fi bàyyi ba ba heure bii te it ci seenu ñàkk ngeen di dund bëgg sëñ Tuubaa di ko liggéeyal bañ ñëw ànd ca fas yéene ci ànd ak yéen ngeen yéen fas fas fas yéen a defal lépp loo xam ne yéen ko ci doon def ba nu ñëw fas yéene ci aw defal leen ca lu lu kawe seen jot loolu la ñuy sàkku ngeen ñaanal ko di ko ñaanal ndaw yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk nekk ci pàkk bi te kenn ku ci nekk di wutu lu dul sëriñ bi noonu sëriñ bi rek la ñu wut waxtu wu ñu yëngoo suñu yëngu suñu dal lépp ci sëriñ bi rek lañ ci wut maa ngi jéglu lu baax ci kàddu yi xaj na dañ maa jàtt rek ñu ma bañ a wax waaye yellutal sax ma wax ndax ñi fi toog ñëpp moom kenn ku ci nekk sa doom laa wala sa leneen laa la gën a tuuti ci yow kon maa ngi jég lu baax ci kàddu yi di leen jaajëf lu baax jërë ngeen jëf. jërëjëf Serigne Fall yi am na solo lool ñu jox Serigne Ibra Fall Diop mi nga xam ne mooy porte parole pàkk bi moom lu jëm ci wàllu invitation yi nga xam ne dañ koy def yeneen pakk yi ak euh, autorités yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi moom mu jàllale ko sëñ Ibra Fall asubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmanirahim alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala seydina muhammadin wa ginnaaw bi ñu nuyoo ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Fallou Ndiaye di ci tekk le président Ibrahima Diouf ak képp koo xam ne nii rek yaa ngi yeewoo ci pàkk bi wala nga fiy daan sa doole di wax ne bis bii nga xam ne ñu ngi koy dëdmal war a tombe ak euh, premier rajab dina tombe ak àllarba walla alxames ñu ngi woo bépp jullit boo xamante ne nii yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah di la wax ne bis bi ñuy woote ci nga bokk bu fekkee loolu jàll na ñu ngi woo suñu kilifa diina yépp di jiital ci woote bi suñu kilifa yi nga xam ne ñu ngi féetee làmbaay muy ñi sant njaay wala ñi sant juuf ñoom ñépp ñu ngi leen di woo ci bis bi di leen wax ne bis bi seen bis la bu jàllee dinañ woo ñi nga xamante ne aussi ay kilifa maanaam jëm ci wàllu nguur di jiital ci woote bi kon bu boobaa président de la république ak soxnaam ak bépp ministre boo xamante ne nii yaa ngi ci gouvernement bi. bu loolu jàllee dinañu woow ñi nga xamante ne suñuy nattangoo lañ euh, ci wàllu pàkku làmbaay maanaam di woo pàkku làmbaay yépp dinañ wax ne fukki pàkk ak nangam am nañu ci ndakaaru kon ñu ngi woo ñëpp di leen wax ñoom tam ne leen bis bi seen bis la. bu jàllee dinañu woo ñi nga xamante ne nii ñoom la ñuy jaxasool ci wàllu commune te boo waxee commune kon di nga wax commune u Lambaye kon ñu ngi woo le docteur Assane di ko wax ne ko bis bi tam sa bis la. fii ñu nekk tam ñu ngi euh, sësoo ak maire de la mu muy du Timbo moom tam ñu ngi ko ciy woo fii tam ñu nekk ñu ngi woo maire Dalifort di boo mbeng di ko wax ne ko bis bi sa bis la maanaam képp koo xam ne nii am nga ko mën nga ko na nga teew ndax soxla nañ ko ndax nag lii ñu dënmal nii kat mbir la moo xam ne dañu ñu koo jox te bu nit bu la joxee bis kilifa gu toll ne sëñ taxaa foog naa ne bis boobu war nga caa def loo xam ne nii dina kawe njortu ñi nga xamante ne dañuy ñëw di la fekk si kon daal ñu ngi woo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne bis bi seen bis la ñun ak yéen ñoo ko bokk kon ñu ngi leen ci woo bu baax jërë ngeen jëf xam naa buñ ca jógee ñu jox ki nga xam ne mooy njiitul wala boog bokk na ci njiit yi nga xam ne ñoom ñoo taxawal lii ndax dafa mel na ay daayira ay daayira yu bari lañu waaye moom bokk na ci ñu gën a ràññeeku muy Serigne Djib Diouf bu ko defee mu wax ñu programme bis bu ma ni muy demee incha allah. na auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina sayidina muhammadu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam dañuy wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi ala kulli xaal santaat yàlla suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo ñu bind wàcce ñi ci kaw suuf mu def ñu ab jaam boo xay ne dañoo bokk ci jaami Serigne Touba yi kon ñoo ngi ciy sant suñu borom bu wéra wéra wér di tuub nag kàddu gi nga xam ne comme sama maa ngi koy yëkkati ci kanam sama kilifa yi nga xam ne comme sama bu ñoom laa nekkal wax dëgg yàlla man mën na maa toog rek doon ab dongo comme li may wax na leen man toujours seen ab dongo laa waaye da di ndigal na moom saa bu ñëwee rek jëfee kon ñoo ngi ci sant suñu borom tabaaraka taala bu baax a baax a baax fi sëñ Ibrahima daaneel ci cant dañuy santaat rek parce que sant moom yàqut parce que sëñ Tuubaa moom loo ko sant rek doyut moo waral bis bi parce que dañoo fekk kilifa yi ñuy sant sëñ Tuubaa di góoru ci liggéeyal sëñ Tuubaa ñun ñuy seeni doom di seeni jëwriñ di seeni ndonga ñu ñëw ñu xiirtal ñu ci tàggan ñu ci bañ aw ci yoonu wooyee kon ñoo ngi leen ci sant bu baax a baax a baax cant gi di ko jiital sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne moo fi ne di kilifa gi nga xam ne comme sample mooy kilifa yi fii parce que moo fi sëñ Touba fi mu toll nii fii ñu jataay bi ñu toog nii moo fi suñum sëriñ Touba kon dañ koy sant bu baax dañuy yëkkati cant ak daayira bi nga xam daayira yëpp nga xam ne mooy fédération daayira bi cant gi dañ koy yëkkati teg ko ci loxol sëñ Fallou mi mu àggaleel na ko ci waa pàkk bi yëpp ci wàkk bi yëpp di santaat daayira fédération yi jëwriñ ñi ngi leen di sant bu wér di leen wax ne lii day ab commencement la boo xay ne xaw na diis lool sax te dina méttit parce que liggéeyal Sëriñ Tuubaa yombut liggéeyal Sëriñ Tuubaa yombut ci benn côté parce que Sëriñ Tuubaa kat bii nga xam ne que dafa jóg ngir liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam maanaam coono bu ne daj na ko fakastal nañ ko ci côté bu ne lu ne daj na ko mais téewul dane dan rek yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba am li muy am kon nun li nga xam ne comme am dañoo bokk ci meññeefam bokk ci ay dongam bu fekk suñu waajuru bokk ci kon nun li ñu war mooy nun na dañoo war ne dann rek Serigne Touba bañ koo booleeg lenn te xam ne moom mooy nga xam ne mooy ñuy jariñ fii moo ñuy jariñ fële fële fëñu la ñu jëm kon nañ ñi ngi leen sant di leen gërëm di leen wax ne nañ takkuwaat te góorgóorluwaat parce que lii aw sas la kat sas la woo xaay ne a ah wax dëgg yàlla man saa su ne xanaa Sëñ Tuubaa ay mbiram kenn xamul nu muy doo ay mbir waaye man saa su ne ciy am am parce que lu tax commencé Serigne Touba di ko liggéeyal dem ba wëlbatu ko après lañ ko daan liggéey lépp naax saay yàlla na ci yàlla musal kon nag yéen ñi nga xam ne yéen ay mag ñi yéen a ñu mën a dooleel nun ay gone lañ ay tuut tànk lañ te suñu pas-pas ak suñu yéene mooy saa su ne liggéeyal Serigne Touba su ngeen ñu gisee ak suñu gisut lépp ci sax liggéeyal Serigne Touba rek mooy suñu pas-pas ak mbooloo mi ko bokk ñëpp kon yéen mag ñu ngi leen di santaat di leen gërëm di leen tàllalaat suñuy loxo di leen wax ne lii ñuy def yéen a tax ñu koy def comme que yéen a tax ñu koy def nag yéen yéenay suñu doole yéen yéenay suñu kattan yéen yéenay suñu lépp su ngeen ñu ñaanalee fu ñu bëgg a ñu àgg fa. parce que nun dañuy dugg ci lu ñu dugg lu ne ci ndigal rek lañu koy ji ginnaaw bu ñu jotee ndigalal sëriñ bi ba pare bañ ca yëngatoo ne dañoo ñëw ci nga xam ne ñooy kilifa yi laaj leen ci ndigal waxtaan ci ak ñoom. ci maanaam ci Baye Moustapha Diop commencé ko ci Baye Moustapha Diop mi nga xam ne moom la yàlla suñu borom teg mu nekk fii nekk ci imam bi nuyu sëñ aale mi nga xam ne comme ça moom it dafay nekkan aale dafay nekkan imam te dem dëkk ba nuyu waale sëriñ Sëru Diouf di leen wax ne nun ay donga rek lañ ñoo ngi ci seen kanam di leen taataan di ñaan ngeen dolli ñu ay ñaan ba lii nga xam ne simb nañ ko ngeen may ñu ci kattan may ñu ci wér ba ñu mën ko àggale parce que yombut tamit wax dëgg yàlla bu ñu leen yomb na yombut yombut parce que liggéeyal sëñ Tuubaa moo def kon nañ leen sàkku seen yërmande di sàkku ci seen ñaan sàkku seen dimbal seen lépp ngeen dimbali ñu ba fépp foo xaay na bëgg nañ fa bisab sëriñ Tuubaa di am ci biir ndakaaru gi di fa am mu sax ci pàkku làmbaay bi parce que ba ñu sëñ bi di ko xam ne comme ça yëkkati na jox nañ ko dana bu ngeen demee na ngeen ko ànd ak ñëpp te saa bu bis bu ñëwee na ngeen ci def seen kéemtulaay kàttan kon ñoo ngi leen di ñaan ngir yàlla saa bu bis bu ñëwatee nañ ci taxaw jë jëmbat ci suñu fulla ak suñu fayda ku ci nekk fàtte sa bopp te xam ne maanaam liggéeyal sëñ rek moo la war lu mu mën a doon ci këru àdduna ak foo mën a nekk ak noo mën a toll bu doon nag sëñ Tuubaa loolee yaakaar naa ne dina nax saay kon lu mu mën doon sëñ tax kon ñoo ngi leen di ñaan di leen ñaan di leen sàkku ngir jàppale ci côté bu ne jàppale ñu ci ñaan jàppale ñu ci lépp rek ngeen jàkk ñoo ngi ciy sàkk na bu baax baax a baax la ca topp mooy bis bi ah bis bi daal dañuy wax ne maanaam ñetti fan lay doon ah safara benn fan lay doon rajet alxames lay doon wala àllarba maanaam bu ñu xëyee ñoo ngi ñaan yàlla bu ñu ko fekkee jàmm ñu commencé ci njàngam arxuraan ak xasida yi maanaam moom lañ koy continuer ba deux heures bu deux heures maanaam ñu am repos bu xéewal yi ñëwee maanaam ñu barkeelu ko gan ñi nga xam ne maanaam dañu fiy ñëw bu defee après léegi ñu fa fexee fu ñu leen teral euh, sagar leen barke ñu barkeelu suñ génnee deux heures buñ ba génnaat continuer waat ci njàngam xasida yi bu cinq heures Ablaye Diop Bisiri moom moo koy àggale ba sept loolu mooy li nga xam ne comme ça mooy programme bi waa daayira boo xam ne comme ça ñooy daayira bu Dakar. bu Masalik ak daayira bi nga xam ne ñaari guddi yi Ndakaaru ñoom woo nañ ma sàng ci suba ne ma incha allah dañoo jëm mbar ci màggal ak sëñ Bari Mbaa ak sëñ ba sëñ sëñ Bari sëñ sëñ Balla Coro dañoo jëm ca màggal ga ne na wax nañ ne maanaam incha allah bu bis baa dinañ ci agsi parce que yéen waa Pàkku Lambaay kat kenn mënu leen a fay parce li nga xam ne maanaam ci la ñuy yëngu ngir liggéeyal ko Serigne tubaa taxaw ngeen ca taxawaay boo xam ne comme sam adduna bépp xam nañ ne yéen waa Lambaay kenn mënu leen ca kon bu ngeen amee bis jëmale ko ci Serigne Touba mu jóge ci maanaam ci ku tedd ki muy sëñ Muntaxa Mbàkke ngeen ñëw di ko taxawal kon bis bi lu mu mën doon ci kër Gouye dinañ ci def suñu kemtulaay kàttan dinañ ko ñëw fekke ko dinañ ca teew luñ ci war def dinañ ko ci def kon ñun ñu sóoraale leen te xam ne bis bi bisab Serigne Touba la ku ci jàpp sëñ Touba jàpp ku ci liggéey sëñ Touba liggéey nun ay dongo rek lañ yoo xam comme ça xañ na yàlla dañoo nattu wax dëgg yàlla mënuñu def lenn lu liggéeyal sëñ Touba mënuñu xalaat fenn lu lu jëm ci sëñ Touba soxluñu lenn lu jëm ci sëriñ Touba kon maanaam suñu borom moo ñu ko nattoo te dañ ci santaat yàlla suñu borom bu wér ak mbooloo mi nga xam ne comme ça wax dëgg yàlla moom laa àndal di santaat senes waa Pàkku Lambaay bépp ñëpp maa ngi leen di sant ba ca borom sareet ya ñëpp daal bàyyi ma kenn parce que ñëpp ku ci nekk maanaam taxaw nga taxawaay boo xaay ne ne bis bi lépp rek daa war a jag kon ñoo ngi leen di sant bu baax di wàcce kàddu yi foofu di tuub di jégalu bu wér te xam ne wax dëgg yàlla lu ca dëng ci sama xel mu gàtt la waaye ñi ma yebal day wax dëgg yàlla suñu sañoon ma wax loo xaay ne dina gën a kawe lool asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ Jibi moom nga xam ne moom mooy njiiti bokk na ci jawriñ ji noonu moo ko waxee rek ñu lay demee bu ñu bu ñu xëyee ca àllarba ja wala alxemes ja lu ci tollook benn fanu rajo ba rek dinañ ko ubbee njàngum alquran ak njàngum xasaayit muy ay kuréel ñii di rajas buñ ca jógee ba deux heures noonu ma ko waxee ñu indi xiiwal yi ñu xiiwlu waajal waxtu tisbaar buñ noppee delluwaat ci njàngum xasiida mi ba 5 heures sëriñ Abdoulaye Diop Bichri ñëw def waxtaan wi bu 7 heures ñu ñaanal mbooloo mi kenn ku nekk dellu ci ay yitteem di wax ne fii ñuy defe jataay bi nag moo tee ndax am na jigéen ñoo xam ni dañoo bokk ci kuréel bi di jigéen ñu ràññeeku ni góor ñi mel ci daayira yi ñoom ñu mel ca ne buñ ci tuddee ñett rek dina leen yóbbaale ñi ci des ku mel ne soxna Abidja ak soxna Ndey Faye ak soxna Astu Ngom nga xam ne ñoom ñëpp ràññee nañ leen ñuy jigéen ñu jàmbaare nekk fii ci pàkk bi defi fi daan seen doole euh, di góor góor li itam maanaam ci liggéeyub sëñ bi waxtu nekk. loolu daal mooy li nga xam ne mooy wàccaayu bis bi ñu war koo def euh, bis bi njëkk ci weeru rajab euh, muy toll ak al wala alxames ci weeru février incha allah loolu daal moom lañ doon woote. bëgg ko xamal mbooloo mépp ñoo ngi sant ñëpp nag di jéggul ñëpp bu ko defee kon ñu jox sëriñ bi mu ñaan ñu yeewi mbooloo mi ba benn yoon jërëjëf sëñ mën ngaa defal mbooloo mi ñaan ñu daal yeewee ko. sëriñ bi mu ne na kenn ku nekk def fatiha salaatu ala nabi ñaan def lixlaas falaxinaas ñaan jotaay bii. ak bés bi nga xam ne moom lañ dëgmal son borom may ñu ñu yeggale lépp. auzu billaahi mina sheytaani rajiim barki Cheikh Ibra Fall ñu fas yéene barkeelu ci baatub laa ilaaha illallah muhammadu rasuulillaahi sallallahu taala alayhi wa sallam njukkale rasuulillah laa ilaaha illallah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 la ilaha illallah bur la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah faal njaga la ilaha illallah لا إله إلا الله يا الله لا إله ñu baax faal may leero may ñu loo la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha la la ilaha alhamdulilah dañ koy sant Serigne Touba rek njukkale ko Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulullah ngir bis bi rek waaw Cheikh rek moom lépp looy xam ne yaa ngi koy jëmale ci Serigne Touba rek da ko koo ubbi war ko war a ubbee Cheikh rek tëjee ko Cheikh Ibra kon ñoo ngi sant bu baax di tub di jégalu